ci dersi firi gun doon firi saaru màgg woowu di suuratul fatiha xam ngeen ni ci jotaay biñ ci mujj a toog noo ngi firi woon luy maana as-siraat al-mustaqim te du ay ci njaal benn dersu tey bi nu dellu ci tuuti dellu ci tafsir bu mag boobu ñuy wax ak tafsirul munir déglu moom nan la gàttale ak nu mu tënkee maanaam asiraatul mustaqim ah sëriñ Haaj طريق الإسلام الذي بعثت به أنبياءك ورسلك وختمت برسالاتهم رسالة خاتم النبيين من من yow miy jàng fatiha boo ne ihdina sirat al mustaqim yal nag nu teg ci yoon wu jub danga da war a gëm te fas ne yo te ne yoon wu jub wa moo di yoonu lislaam wu digg doomu woowu te lislaam mooy jébbal sa bopp yàlla jébbal sa mbir yépp yàlla yoonu lislaam yoonu jébbalu ci yàlla wu digg doomu woowu nga xam ne mooy yoonu dëgg te itam mooy yoon li nga xam ne moom la ñu mos a yónni yonent yi yëpp yonent fi jiitoon yëpp li ko tàmbalee ci adama alayhi salaam jaar ci nuux jaar ci huud jaar ci saalix jaar ci ibrahim yonent yëpp diine ji ñu andi mooy diine yi lislaam ndaxte lislaam mooy jébbal sa mbir yëpp yàlla yàlla di la sant ngay def mu lay tere ngay bàyyi diine yooyu nag nga jooji jooju nga xam ne mooy diine lislaam te ki mottali yonent yooyu ñu ko yónni woon di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam risaalaam di li mottali diine yooyu nga gëm ne as-siraatul mustaqim mooy diine jooju aha wa jumlatu ma yuusilu ila as fi dunya wal aaxira min aqaaida wa أقسام وآداب defee nga gëm ni diine lislaam moom boo dajalee mboolem mbir yi nga xam ne mooy tax nit ki mën a am tex ak adduna ak tex ak àllaaxira ci ay atte yu jëm ci ay pas-pas nit ki war a fas lu jëm ci ay ahkaam nit ki war a def ak lim war a ba ak i aadaab ni mu ko war a defee ak ni mu ko war a bàyyee ci mujtama am lépp lépp lépp diggam ak yàlla diggam ak boppam diggam ak famille am diggam ak société am jumlab atte ensemble atte yi nga xam ne moom dong moo mën a yóbbu nit ci ci ci ci texak adduna ak alaxira jumla euh, atte yooyee nga xam ne moom la yàlla wàccee tashrial ko moom mooy diine lislaam ah. ni ci xam booy xam xam gu wér suñ borom yàlla ak aslaf ci ay melokaanam xam gooy xam am gooy am pas-pas bu wér xam gooy xam aslaf ci yonent yi alayhimu ak seeni melokaan loolu boo ko boolee جملة أحكام يجا خمنا مولا من تحت تحك الله الآخرة جملة أحكام يويو موي الصراط المستقيم انتهى عن الكتاب ففسر الصراط المستقيم بمعنيين متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر بنو خوله برام تفسير بدانو جسنا سيلينو جتوخ firi na ci siraatal mustaqim ñaari yoon ñaari firi na mi mi mooy dafa wax ne siraatal mustaqim mooy diine sa borom yàlla gi mu wàccee ci yonent yi yëpp te mboolem yonent yi mu mos a yónni yëpp li ko tàmbalee ci ki ci jiitu ci mooy aadama alayhi salaam ba ci ki leen mottali tëj buntub ak doon yonent muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jenn diine di leen yàlla yónni muy lislaam diine jooju mooy siraatal mustaqim firee na ko noonu fi re ko ni moy jumle ay ay acte ak ay ahkam ay pas-pas ak ay jëf ak bàyyi ay santane sa borom yàlla yi nga xamni mom dong te jaar te dong mo meuna may nit te hak aduna ak alakhirah lolo mooy siratal mustaqim aha bu ko defee nga gis na ñaari firi yooyu mu ko firi daanaka benn lañu mun ñoo tàqali ko xanaa bu jëkk bi dafa xaw a gën a tënk ndax moom daf na rek mooy diine sàngam siraatal mustaqim mooy diiney lislaam mooy diiney jébbal sa bopp yàlla mu lay sant ngay def mu lay tere ngay ba ci yi yëpp te loolu la yàlla yónni yonent yëpp mu ne loolu mooy siraatal mustaqim dellu wëlbatiku ne siraatal mustaqim mooy jumlay mbooleem ay santane ak tere ay atté ak i pas-pas yi nga xamné mom la mom dong mom dong mo meuna a yóbbu nit ki ci cax ak adduna ak alaaxira loolu mooy siraatal mustaqim ñaari maana yoyu nan mun ca tàggoog men amul fenn fu nit meuna jaar ba am tax ak adduna ak alaaxira lu dul ci islam te islam moy yoyu ñi jaar pour am tax ak adduna ak alaaxira moo tax ñaari wax yi yenn jee معلوم أن هذا الدين عقائد وأخلاق وأعمال ومعاملات فكل جزئية من أجزاء الحياة قد شملها الإسلام إما إجمالا وإما تفصيلا حسب الموضوع جناو nga xamne nak kon jaar ci diine l'islam jébbal say mbir yàlla mu lay sant ngay def mu lay tere ngay ba ginnaaw nga xam ne atte yooyu sa borom yàlla wàcce xam na ne am na ci loo xam ne ay pas-pas la yu nit ki war a gëm te ñun ñi toog ci biir jàkka ji ak nu ñi dégg kàddu bi ñàkkul wuute nañu ci yenn na ci pas-pas wuute nañu ci yenn na ci pas-pas matalan ñii ànd nañu mbooloo sàngam yaakaar ci ka jiite mbooloo ba fas ci moom nangam ak nangam ñii ànd ak meneenu mbooloo yaakaar ci ka jiite gëm ci ka jiite mbooloo ba nangam ak nangam ñeneen noonu ñeneen noonu xam ngeen ne kon wuute nañu ci ay pas-pas waaye ñàkkul ci pas-pas yooyu pas-pas boo ci xam ne bii moom la yàlla wàcce ci alquran wax loo ko sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu jàngale ko pas-pas yooyu ak atte yi nga xam ne moom la suñu borom yàlla wàcce mu jëm ci suñu dund tey mu mu lamb ko lépp lépp looy bëgg a def benn muy lu la yàlla sant wala muy lum la tere wala muy lum la daganalal ne la bu la neexee dafa bu la neexee baal bu dee lum la sant sant ga naa ànd ko dogu wala mu sant la ko te dogu wuute bu dee lum la tere tere gi mën naa ànd ko dogu man naa tam doon tere goo xam ne kenn dogu wuute muy juróom yooyu juróom yooyu amul lenn lu nit di def wala mu wax ko ndare du am na benn atte bu ko gaar ci juróomi atte yooyu bu ko defee nag kon jus iye bu ndaw bu ne ci li nit ki di def wala mu di ko bàyyi juz'iya bu ndaw bu ne la ci sama borom yàlla wax lam ci atte ak na mu ko attee na mu bëgg ko na defee ndem lu ñuy def la wala na mu bëgg ko na bàyyi ndem lu ñuy bàyyi la loola moo ci siraatal mustaqim te mën nañ koo jël misaal ci lu ne lu ne suñu borom yàlla ala sabilil misaal santaane na ku ñu julli si jumaa ab santaane ngoog am na nu bëgg ku ko na defee te mooy nga sangu sol sa mbub mu rafet boo ko amee mu set set moom mas na koo am laa sa gëtt bu am nga gët te nga teel a dem ca jumaa ja mu loolu mooy santaane bi ak jëfin yi nga xam ne noonu la yàlla bëgg ku ko ni defe man noo jël ci sunu xayaat fardiya masalan lekk suñu borom yàlla daganal na lekk am na ay ñam yu mu daganal ku ko lekk ak yu mu xaraamal ku ko lekk li ngay lekk bu dee day doon yàpp bu mu doon yàpp mbaam xuux bu mu doon yàpp mbaam kër bu mu doon yàpp wu yàlla xaraamal daal na doon yàpp wu dagan tey nañ ko rendi aw rendi win wu dagan loolu ab acte la bi nga demee ba di ko lekk am na aw lekkin masalan lekkal sa loxoom ndeyjoor lekkal ci sa kanam boy tàmbali lek waxal bismillah bu lek ci dig ndabli comme nak yenen ci bi jàngale sallallahu alaihi wasallam kon lek lolu mo ci as-sirat al mustaqim bo de wut alal yo da ngay jaar ko am ko atte yang koy jaarale bo de khulu bo de atte wu ci kanamu tribunal ba la ngeen di atte wo bo de doxal sam rew bo de tak soxna na nga yore soxna sa kan ko nek ci yéen ñaar lay akam ak lay waj war waru waram bo amé dom yoy yëpp len lu ci nek amna ay at yu ci ñëw juz'iya bu ci nek la ca yàlla wax yow mu ko def te def ko ndam ko waxé lola moy siraatal mustaqim ci bob aha te lolu leral nañ ko bu baax bu yaato yaato ci xutba bi passé kon aaju wul jàllu aha kon boog tey dañuy continuer incha allah ci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 soo tul mu ne la ay koppar yu bari bu dee ku feebar moom dana laan la ak wér waaye fekk na yooyu yëpp benn du ci soxla si gën a mag soxla si gën a mag ci fay soxla nga xam ne bu antoo sa adduna baax na sa allaaxira baax na yàlla ci yërmandeem daf nooy jàngal soxla soose ci suutul fatiha ne dee leen ko ñaan ci julli gu ne te di ko ñaan ci rakka bu ne te mooy yàlla teg nu ci siraatal mustaqim yàlla na nu yàlla teg ci siraatal mustaqim aha ba noppi nag suñu borom yàlla bi munu jàngalee ne loolu mooy soxla si gën a mag mu tekki nu ne nu tudde siraatal mustaqim muy yoonu gaa ñi nga xam ne defal nga leen yàlla صراط الذين أنعمت عليهم yoonu gaa yi nga xam ne defal nga leen xéewal ñooñu mooy yonent yi mooy siddiqin yi ñooy suhadaa yi ñooy gaañu baax ña yal na yàlla boole ci gaañu baax woowu yoon ña ca jaar yo ñi jaar ci siraatal mustaqim rek mooy mooy ñooñu mooy ñi yàlla defal xéewal loolu mooy siraatal ladina an'amta alayhim ah alladina an'amta kon nag bu kenn yaakaar ne ñi yàlla defal xéewal mooy ñi toppul islaam mooy ñi toppul siraatal mustaqim déedéet koo xam ne kii gëmoo yàlla wala gëm nga ko waaye gëmoo sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam loo bari bari doole adduna loo bari bari bari alal loo am am wér gi yaram loo bari bari mbooloo ginnaaw nekkoo ci siraatal mustaqim xamal ne bokkoo ci ñi yàlla defal xéewal aha li tax bokkoo ci ñi yàlla defal xéewal mooy ñi nga xam ne jaaruñu ci siraatal mustaqim ki jaarul ci siraatal mustaqim gëmul yàlla te kon jaarul siraatal mustaqim wala gëm na ko waaye gëmul sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te kon jaarul ci siraatal mustaqim wala nee na gëm na ko waaye taxul mu jëfe ko تكون جار تسلاف المستقيم كوكا كمو مانا دون لو منا أم فمو منا نه كم منا أندل لوني باري باري باري باري يلا دفلو لين خيول لطح نخفي نيوم سيونو بدون بك أدنا بدون في أملو مك تروازة بطان تي فاني سان برام يلا سن برام يلا نينا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون yàlla nee na benn bis ci ay bisam mi ngi yàgg ne junni at ak at yu waaw kon ki nga xam ne kii dafay am téeméeri at dafa mel ne ci considération suñu borom yàlla ñaari waxtu la fi am ak vingt quatre minutes kon ki fi dund téeméeri at te nekkul ci siraatal mustaqim ñaari waxtu ak vingt quatre minutes la fi dund ba noppi daal di wuy ji boroomam aha bu ko defee nag bu ñu wujjee seen borom foofa la problème ba nag ndax daanu mos ci mbugalum bàmmeel ci alxayaatul barzaxiya mbugal moo xam ne metti waay ba benn minute mbugalu wecce na lu ëpp junni at ci junni at yooye loo fi mën a am ci alal junni at ci adduna mbaa fukki junni at ci adduna yoo xam ne dañ la waxal alal loo bëgg ñu jox la lu la yar ci sa xel di nga ko am loo bëgg ci wér gi yaram di nga ko am loo bëgg ci mbooloo di nga ko am nga am ko lépp dimb jimmi ak boole ci boo duggee ba meel te ne ko woon ci siraatal mustaqim benn minute ba nga fay jëkk am wecc na nangami junni ak yooyu nga nekkoon ci adduna ak loo fi mën a am ci xéewali adduna yàlla ñu ci yàlla musal آه. ثم يصيرون الى الدار الاخره تكتل بمت الفجار رك الفجار رك دادي جل نك الاخره الاخره نك موم خالدين فيها ابدا ليبر لولو ما تخكيد بتي ادنا تجارو في صراط المستقيم لو من ام لو على الجبر بري بري امول دارا دا خي بايكو loo yor yor ay milliards yu bari boo doon noon milliardaire bi ëpp alal ci adduna te jaaroo ci siraatal mustaqim boo dee dee waxuma laa doo yóbbu ci milliards ya dara waaye mbub mi nga sol sax bi ñu la ko bàyyee nit ñi dañ koy dongu dañ koy summi dañuy tekki montar bi nga takk jaaroo ci loxo bi sax bi ñu la ko bàyyee dañ koy tekki juróom ñaari mètre de percale lañ lay lëmase daat lay gas am pax dugal la ca suul la nga ne fa nag ci alxayaatul barzaxiya te alxayaatul barzaxiya beneen dund la bu bokkul ak suñ dund bii bu leen leen comparé bu kenn yaakaar ne ba nga suulee néew ba moom fa nangami weer nga dem gas fekk eh, yàpp wa seey na yax ya tàmbali di seey nga yaakaar ne kooku nekk suñ di dund axakay ma ngay dund day dund beneen xeetu dund te mi ngi ci xéewal wala mi ngi ci mbugal ak fitna te itam junni ati alal ay milliards yu baree baree bari te àndul ak jaar ci siraatal mustaqim ko mu dal boo duggee ci bàmmeel minute ba nga fay jëkk a am la nga fay daj ci mbugal du la jaral nga dund ñetti junni at yoo xam ne da doon buuru adduna bi moom alali adduna bi am ki doon ki doon wér am am wér ci adduna bi du ko jar mukk waxuma laaj nag la nga nar a am ci bàmmeel ci ay at waxuma waxuma benn minute bi at ya nga fay am am na ñoo xam ne am nañ ci bàmmeel ñaari téeméeri at am na ñoo xam ne am nañ ci bàmmeel junniy at am na ñoo xam ne am nañ ci bàmmeel ñetti junniy at tasawaru abu jahlin abu jahlin am na ci bàmmeel junniy at ak juróomi téeméeri at daanaka junniy at ak juróomi téeméer benn minute bu ci nekk wallahi ma nga cay mos ci mbugal loo xam ne jaralu ko moom dundoon ci àdduna te mboolem banque yi fi ne li ci nekk ci alal mu moom ko moom adduna bu ñu fal ko waxuma la buuru mu nekk buuru xijaaj waaye mu nekk sax buuru adduna sépp mu doon seen buur moom alali adduna bépp li mu ciy am ci bànneex du ko déglee mukk ak benn minitu mbugal ga muy am ci bàmmeel te léegi nag am na fa junniy at ak juróomi téeméeri at ca mbugal moomee yàlla na ci yàlla musal ba fa jógee door a jàll àllaaxira دغنا لجهنم خالدا فيها ابدا كون خم دنا كوكو سا بروم يالا ديفلو كو خيوال بوك اك لوم مانا ام سي عبد الله اها انعم الله عليه باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كو خم نكينا يالا ماينا لا خيوالو ngay top سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كو خم نكي يالا ماينا لا خيوالو ngay tek sa tank fa sayyidina muhammad صلى الله عليه وسلم دان تكتانكم جار في كتابك سنة يو ياي كيال لدف الخيول اها لطاف فهو المنعم عليه ولو عاش فقيرا ولو عاش وحيدا هو كما كيال لدف الخيول دوان تدن كوي جيس ام لك دوان تدن كوي فرخ مدور لك واي مغي طب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كوكا لا يلا دف الخيول دونتي dafa wéet amul soxna kenn nanguwul a dund ak moom ndax bëgguma bëgg a dund alquran ak sunna waaye mi ngi dund alquran ak sunna ci anam gu wér kooka la yàlla defal xéewal doonte dañ koo tox toxal di ko dàq di ko toroxal ci adduna di ko wàcce di ko ko di ko xiit xiital lu bon lu ne ñu def ko ko lu bon lu bon wax ko ko waaye mi ngi teg tànkam ci tànki sayidina muhammad alayhi salaatu wassalaam mi ngi jaar ci alquran ak sunna kooka mi ngi mooy ki yàlla defal xéewal lu tax ndaxte li tax moo di métit woowu mu nekk te mooy ñàkk gi ñàkk gi mu ñàkk amul alal ba mu lekkee def koo sarax masalan ak kenn nangu wute bokk ak moom kër kenn nangu wute dund moom doom nangu wute ànd moom jaboot nangu wute ànd ak moom mu wet waa réew mi waa adduna bi yàllante kon ñu bañ ko fu mu dugg ñu dàq ko ñu di ko beg di ko voddi waaye ñu ngi dund alquran ak sunna loola metti na ci adduna naam waaye mettitu war dëgg yàgg du weesu ak dundam ci adduna te bu leen fàtte nag dund googu du reesu ñaari waxtu ak vingt quatre minutes ndegam waa ji am na téeméeri at ca loole te du ko ci am xam ngeen ni te bu ko ci amoon tam du reesu deux heures vingt quatre minutes mu daal di dugg ci bàmmeel te bu duggee ci bàmmeel minute ba mu fay jëkk a am dana fa mos ci banneexub xéewal loo xam ne dana ko fàtteloo lépp lu mosoon a métti ci addunaam doonte dafay dund ñetti junni at yoo xam ne lépp ak ñàkk la lépp pauvreté la lépp toroxte la lépp wéetaange la waaye mu ngi doon jaar ci alquran ak sunna minute bi muy jëkk am ci bàmmeel dana fa mos ci xéewal loo xam ne dana ko fàtteloo loolu jël leen qiyaas ci sayidna abou bakar ibn abi quhafata radiallahu anhu jël leen ci abu hurayrata misaal radiallahu anhu keroog ba nga xamee ni bi Abu Hurayra na nga xiif a xiif a xiif a xiif ba takk biiram bi ndax mënut a jóg taxaw Seydina Aboubacar romb ko mu di ko càkkalaar ndax bëgg ànd ak moom këram ndax mu am lu mu lekk Seydina Aboubacar yàkkamti seetluwu ko Seydina Omar romb ko mu def loolu seetluwu ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jub ko naka mu ko seen xool ko daal di xam li Abu Hurayra nekk ci xiif yeneen yàlla Muhammad dafa dafa muuñ dafa ko muuñ daal di koy ree ne ko kaay dem yaa Aba Hir Abu Hurayra daal di kontaan daal di topp ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam ak xiifam bu rëy ba mu demee ñu dugg ca néeg ya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk fa karaafu soow Abu Hurayra kontaan ak kontaan ba àgg fu la mun ta wax karaafu soow boobee mu yaakaar ne dañ ko koy jox ne ko naanal. yonent bi ne ko sallallahu alayhi wa sallam demal wool ma ahlu suffa te mbooloo lañu ñu moo xam ne ñoom ñëpp ay faqir lañu kenn amu ci neet kenn amu ci kër kenn amu ci jabar ñoom ñëpp dañ dal falang biti ci wetu jàkka ji ndax ñàkk ñu woo leen ñu fees ne di jël abu hurayra na accam sama yaakaar tas na ci xelam la ko wax ndaxte ginnaaw ñi ñëw nañu karaas bu soow bi du du du man di sax genn wàll ji waxuma laa mu di ci bokk waaye la yàlla dogal sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam la yàlla defal mucjisa ñun ñëpp ñu naan sa karaf ba ba mandi soow mi jeexut ñu delloo soow mi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi xool abu hurayra daal di muñ ne ko abu hurayra maa yow noo ci def am naanal abu hurayra naan naan naan naan ba mandi yonent bi ne ko naanaatal muy naan di naan ba biir bi fees mu ne yaa rasulallah amatuma fu ma ko def yonent bi door a jël desu gaaña des wala naan ndax woyefal adduna ñuy xiif xiif bu méttee noonee waaye kere bu ñu duggee bàmmeel ak léegi muy junni at ak ñeent téeméeri at benn minute bu ci nekk mos nañ fa ci xéewal ak ci ban bànneex loo xam ne fàtteloo na leen lépp luñ mosoon a xiif mbaa lépp luñ mosoon a mar mbaa lépp luñ mosoon a torox ci kaw suuf ngir taxawal diine islam yàlla na yàlla jaar la ci tànk yooyee aha te buñ jógee ci bàmmeel nag la ñuy door a dem ci xéewal gu magga aljanna aljanna buñ fa duggee saa borom yàlla day yónni comme ni ko sang bi waxe ci xadiis boo xam ne muslim moo ko solo رضي الله عنه من ينت على محمد صلى الله عليه وسلم نانا نعم. بوا الجنه دم الجنه سم برام يالا داي يوني كولين واخ نيلين ينوا الجنه من جينا نك الجنه دا نين دي نك تي ويرغي دوتو لين فيبر با الجنه كان دو فا يور تاسيون الجنه كم دو فا يور جابت الجنه كم دو جريب الجنه كم دو فا من جينا دك الجنه دوتو لين فيبر با tey itam da ngeen fiy dund duutu leen dee mukk tey itam da ngeen di nekk ci ndaw ci waxambaane duutu leen màggat mukk te da ngeen di lekk ci lu neex duutu leen gis mbaa ngeen dégg lu leen naqari ba mukk ba mukk ba mukk kon kay fàtte nga deux heures de temps yi nga amoon ci naqar ci àdduna yal na yàlla deful loolu aha loolu nag ci lu bokkut ak li gën a neex loolu dàq ko te mooy saa borom yàlla ne dama leen di dolli ñu ne ko ah rabbul izzati loolu ñu dolli ci ñun liñ nekk ci ay xéwal mën naa dolli koo mu ne dolli naa leen li ma leen di dolli mooy gërëm naa leen te duutuma leen mere ba mukk yal nañu yàlla boole ci mbooloo moo la وعبارة الصراط الذين أنعمت عليهم تدل على أن من أنعم الله عليهم هم الذين هدوا إلى الصراط kon boog صراط الذين أنعمت عليهم day wone ne yoonu ñi yàlla jox xéewal mooy ñi nga xam ne yàlla teg na leen ci siraatal mustaqim yàlla na ci yàlla boole aha am na nag ay xam-xam yu bare bare bare yu des ci maam ci maani yi nekk ci siraatal ladina anamta alayhim waaye danoo yàgg ci saar wi te guddal nañ ci bu ëpp motax nu bëgg koo lem te jàll aha wa qawluhu taala gayri lmagdubi alayhim wala ddallin fihi dilalatun ala anna yim ci teg nag te booy gayri lmagdubi alayhim wala ddallin day wone ne bépp yoon wudul siraat al mustaqim du dara wudul yoonu ñu sànku ñi mooy ñu yàlla mere ak ñu réer ñi gayril maxdubi alayhim wala dallin mooy yàlla boo nu teg ci yoonu ñi nga xam ne des leen a mere yàlla boo nu teg ten ci yoonu ñi nga xam ne dañoo sànku loolu li muy wane mooy wépp yoon wudul siraat alladina an'amta alayhim ويطفلوا ونغذوا السراط المستقيم أكتنك تركلا يونك يالا نرى ركلا يونك تنك ركلا يالا نجال المسلم أها وقد ورد في الحديث الذي فرجه الإمام الترمذي وغيره عن علي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يالا نجال محمد صلى الله عليه وسلم وخذ الحديث وخمنا الإمام الترمذي صلى الله عليه وسلم جلت عدي من يالا محمد دفو وخذ يهودي بينهم يلا يلا مرنا لين اليهود مغضوب عليهم يهودي يلا مرنا لين نصراني دا يوسانكو لول وخي سيدنا محمد لا صلى الله عليه وسلم دا نينا بغو نو ويديكو نو ويدي وخي سيدنا محمد خنا صلى الله عليه وسلم خنا كون ني دال دي دون اي ييفر في ساسي دي ديت لولو دو مانا نك اب جوليت دي گم لي يالا وخ عبد الله بن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يونو يونو معنى يهود يهودي الذي لم نرى نسراني يدن يوسانكو سيدنا محمد نيوك وقت وخنت اها فدل هذا على ان المغضوب عليهم يشمل اليهود والضال لولو ندمتي جلنا نيال لم نرى يهودي تي لاني te itam ñi sànku nasaraan yi ci lañ bokk waaye nag duñ ci jële ne ñoom rek la yàlla mere wala ñoom rek a sànku déedéet ndaxte xadis bi xasruwul daf ne yàlla mere ne leen ñee sànku nañu xasruwul kon boog ñoom dañoo bokk ci ñi yàlla mere waaye du ñoom dong ñooy ñi yàlla mere yal nañu yàlla musal ci nuy bokk ci ñi yàlla mere wala ñu sànkuñ aha وقد بسط ذلك الإمام ابن القيم في تفسيره القيم ولكنه انقسم الناس بحسب معرفة موتخ الإمام ابن القيم يعتلنا في وقت جوجو في تير تفسير بابو أم أمسر بابو التفسير القيم من نتني فاتحة دلنا سد لنا نتك مبو كورل كان نكون نتكلم ندقلو بخم نتك كورل يا يتبان لا تبوك فاتحة دلنا سد لنا نتك كورل كورل الذين أنعمت عليهم كورل يا الله دف الخيول يا الله بوله ak kuréelu ñi yàlla mere yàlla nañ ci yàlla musal ak kuréelu ñi sànku yàlla nañ ci yàlla musal alquran fatiha dafa séddee nit ñi ñëpp ñetti kuréel ñooñu kenn ku nekk ci nun na seetal boppam ba xam ñetti kuréel yooyu ban la ci bokk balaa yowm alqiyamatee ñëw aha ndaxte jaam bi ibnu qayim ba wax mu ne ndaxte nit ki benn mu xam dëgg te topp ko kooku mooy ki yàlla defal xéewal wala xamul dëgg kooku daa sànq wala xam na dëgg te topp ko kooku mooy ki yàlla mere yahuud yi dañoo xam dëgg te toppuñu ko moo tax yàlla mere leen nasaraan yi dañoo xamul dëgg moo tax ñu sànq yal na yàlla musal ci yoonu yahuud ak yoonu nasaraan yal na yàlla musal ci cànkute yal na yàlla boole ci yoonu ñi nga xam ne yàlla xéewal na leen aha وهذه أقسام المكلفين لا يخرجون عنها البتة mu ne nag ñooñu loolu ñetti kuréel yooyu moo ëpp xeeti nit ñi ñëpp kenn nit munu see rëcc il faut rek nga bokk ci benn ci ñett yooyu yow mi may déglu faw doon nga ku bokk ci ñi yàlla defal xéewal te yàlla nañu ko yàlla def def la ko ولا بوك nga ci ñi yàlla mere yalla nañ ci yàlla musal wala bokk nga ci ñi sànko yalla nañ ci yàlla musal aha ki nga xam ne ci xam na dëgg te mi ngi koy jëfe kooku mooy ki yàlla defal xéewal yal ci yàlla dimbali kooku mooy ki nga xam ne kii dafa jàng ba xam ak dëgg yar bakkanam ba jaar ci dëgg yal nañu yàlla dimbali ci loolu aha te itam mooy ki nga xam ne kii moo texe قد أفلح المؤمنون آه. والعالم به المتبع كي خمنا كي نك خمنا دق واي دق فا باي توب بنا خم توب لنا كوك ما يكي يلا مر يلا نجا لمسل آه. والجاهل بالحق هو الضال كي ليري أدقنا منو كو توب كوك ما يكي سانكو يلا نجا لمسل كون باك ينك نفسي من نسر بطم بخم نفسي ويكن لك خم دق توب دادي بوك تيال دفل خيوان wala xam dëgg bàyyi ko fa topp sa bakk rek sa bànneex daal di bokk ci yàlla mere wala xamoo dëgg ko xamul dëgg mënoo koo topp daal di bokk ci sànku yàlla ñu ci yàlla musal aha فالمغضوب عليه ضال عن هداية العمل والضال مغضوب عليه لضلالته عن علم الموجب للعمل فكل منهما ضال مغضوب عليه واو ولكن ذلك العمل بالحق بعد معرفته به اولى بان يوصف بالغضب واحق به انتهى عن الكتاب وخير ما ننهي به هذا بك جلدي دانا كلم دول وقت ساري ودن كي يمالسي معاني سورة الفاتحة بجيخ القرآن جيجلة كنك نك دنكي في بفصا خم خم يم جيجل كنتنا نوخي يلا نون لمل gis ngeen xam-xam bu bari bi nekk ci suuratul fatiha yal nañ ci yàlla jotale te yal na yàlla may jëfe ga te yàlla nongul ñu te jéggal na suñuy bakkaar ngën ji nag lu ñuy jeexale tafsir bi moo di ab woote woote boo xam ne bii ci sama bopp laa koy tàmbalee di woo nit ñi ñëpp ñëpp ñëpp di woo nit ñi ñëpp woo yéefar woo jullit ñi waaye damay woo yéefar yi damay woo ñi gëmul yàlla ak ñi ko gëm te gëmuñu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di woo itam jullit ñi ci ñaari yëf mooy ñu gëm kitaab ak sunna te topp te tënku ci tënk gu mat sëkk gu wér cëng loolu dong mooy siraatal mustaqim amul leneen aha إن من المهم أن ننبه إلى أن في الكلام جملة وتفصيلا فالذين لم يؤمنوا بالإسلام وقد جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مغصوب عليهم وضلال وقد فعلا نقول أنك فرن فانت قسنك قنت ورا الليرال حتى نيغا خمنا ني ñoom gëmuñu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam imma wote bi àggul ci ñoom wala àgg na waaye gëmuñu ñooñu aha walakin alladina amanu bihi yajibu an la yakunu waaye itam ñi nga xam ne gëm nañu yàlla gëm saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te mooy nun am na benn réalité bu wóor bu wér boo xam ne war nañ cee bàyyi xel ba mu ban noo dal aha أن أن الذي شهد بلسانه وقلبه أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ودخل بذلك في الدين الإسلامي فقد هدي إلى الصراط المستقيم ولكن يبقى أن يسير عليه ويلتزم من يخمن بنظم يلا جم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لي سنو wàll ci woote bi mooy réalité bu mag boobu ma جم moo di جم gëm خل وقت lammiñ gëm لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يو دينا سيرنا يلا ركاي بور تيتم دينا نمون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يلا كو يوني تلولو بوكو وخير كسا لامين كسا خل جم كو كون دقونغة الإسلام واي دقونغة الإسلام موي تقونغة تيكاو يون الإسلام تقو تي يون منك بوكو دفع بنوبي آجو نغا دخ نغا دخ بوكو تيكاو يون boo tegoo ci yoonu silmax ci kaw goudron bi goudron bi dem na ba ndakaaru waaye boo demee ba tegu ci kaw goudron bi te doxoo ndax da nga àgg ndakaaru déedéet boo demee laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tegu nga ci siraatal mustaqim waaye nag des na nga dox ci kaw siraatal mustaqim yal na nu yàlla may na dox ci siraatal mustaqim dox gi mooy jëfe gi dox gi mooy bépp portion bépp jus iye bu bokk ci sa dund ak lu mu tuut tuut nga fexe ba jaarale ko ci siraatal mustaqim say pas-pas li ngay gëm ak li ngay weddi say jikko li ngay nangu ak li ngay gàntu say jëf ak say jëflante li ngay def ak ni nga koy defe sa digganteeg sa bopp sa digganteeg sa soxna ak say doom ak sa famille sa digganteeg sa société alal ji ngay wut ni koy wute ak ni nga koy sànke ak ni ngay attewoo ak fi ngay jaarale sa dund ci société bi benn portion bu ci ne benn juz'iyya bu ci ne nga jaarale ko ci siraatal mustaqim te mooy fa yàlla rëdd sayyidina muhammad leeral ko ci ndigalam sallallahu alayhi wa sallam ne defeel nii yow mu fa jaar loolee mooy yow mi mooy mooy yow mu nekk siraatal mustaqim loolu mooy li nu war ñun ñi nga xam ne yàlla baaxe nanu ba teg nu ci yoon bi aha أما أن ننطق بكلمتي الشهادتين جزافا ثم لا نعمل بمقتضى الإيمان بهما فالذي فعل ذلك إما أن يكون غير متعلم لهذه العقائد والأحكام فليخشى وليحذر من أن يكون من الله أما نجم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون دقنا في الإسلام waaye اللي بوح تموي wax الإسلام تسلف بس بس بس دبو lépp بس say pas-pas dëppoo ak pas-pas yi sayidna dëppook loola say jikko dëppoog ak jikko yi alquran andi ak li sayidna muhammad jàngale sallallahu alayhi wa say jëf ak say jëflante ci société bi lépp nga jaarale ko ci alquran ak sunna bu fekkee ne bi loolu defuñu ko kon ki defut loolu ah kooku kat ay mbiram mat naa set benn nga xam ne defu ko ndax da koo jàngut da koo xamut دغا وخ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واي فاس فاس ويري خموكو جيكو يالا بوكو جيكو سي القران اك سنه خموكو داخ جانغو نيت لو مو جانغول دوكو خم نيت لو وخ سي سي جانغول تاري جانغول تاري وي لين ما جانغول تاري لو تي ولاف وخ فن لا جانغول تاري فن لا بو فكني بيو لي يالا بغ اي جيكو ملني جانغوكو doo ko mën a jëfe li yàlla bëgg ay jikko mel ni ak ay pas-pas jàngoo ko doo ko jëfe ni nga xam ne noonu la yàlla bëgg ku di dunde ci sa vie spirituelle sa dundu sa digganteeg yàlla sa dundu ruu wala sa dund sa digganteeg say njaboot sa dund sa digganteeg société bi jàngoo li ci ñëw ci ay aaya ak ak ak ahadis ginnaaw jàngoo ko xamoo ko ginnaaw xamoo ko kay mënoo caa jaar قل يوم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتي مبكي جلتي نخبينا نخبينا ويلين ما دويت دويت الفوم الجفة ليل ناري بعد يوم يلات بلن كومن الجفة دمكو جنغ ننلين جنغ ننلين جنغ ننلين جنغ أمنو لي خوفكو دو لي كي كرمو يالله xaw ma ko woon du lay ci kanamu luwaat nan leen jàng nan leen jàng te jàngal njaboot yi ki nga xam ne kii jàngul siraat al mustaqim bi ci mën a jaar ndax xamu ko te ginnaaw xamu ko jaaru ca day daal di bokk ci ak daaluuna dong loolu la ku ñaar ki nag وإما أن يكون قد تعلم هذه العقائد والأحكام وعلم وعلم منها ما يكفي لتطبيق ولا koo xam ne kii moom gannaaw bu waxee ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jàng na ba xam lu doy ci ay pas-pas nan la yàlla bëgg mu mel na waaye nag da ko faa bàyyi dem fasi leneen ndax ay intérêt personnel wala ay soxlay adduna jàng na ay jikko nan la yàllaa ko yonentam bëgg mu mel na waaye da ko faa bàyyi ndax topp bakkanam ak bànneexam jàng na xam na vie spirituelle dund ko nan la yàlla bëgg yàlla nan la bëgg ku na jullee nan la bëgg ku na woore nan la bëgg ku na jàng alquran xam na ko waaye defu ko ndax dafa tayal dafa topp bakkanam nan la yàlla bëgg ku na ku na takk soxna ku na yore soxna ku na yore njaboot waaye defu ko ndax daa bëgg ànd ak jamono ba ba jeex kooku xam na ko waaye la mu xam da ko fa ne ñël dem top bi banexam ndax aduna da ko fa ne ñëll bayiko fa kooka xam na ne mos bok na ci ñi yàlla mere ndax jëfi yahudi le def al almaxduba alayhim la yëlam ci yàlla musal aha ñi nga xam ni nak jàng nañ ci al-qur'an ak sunna lo xamne doyna pour mën xam sa faratay jëm doyna pour nga xam ay pass pass yu wér nan la wara mel li nga jàng ci alquran ak sunna doy na pour nga mën a xam ay jikko yu baax nan la war a mel doy na pour nga xam sa vie spirituelle fan la war a jaar noo war a jullee noo war a jàppe noo war a sang sangoo noo war a jànge alquran noo war a woore xam nga ko xam nga xeeti koor xam nga ñooy asakaale te yaa ngi koy def te nan nga war a yore soxna nan nga war a yare say doom foo leen war a jaarale jàng nga ko xam nga ko te yaa ngi noo war a wute alal jàng nga ko xam nga ko wutiru alal yu baax yeeg yu bon yi yu xaraam yeeg yu dagan yi xam ne nga leen te yaa ngi jaar ci yu dagan yi bàyyi yu xaraam yi jàng nga ko xam nga ko te yaa ngi koy def te itam ñi ngay sànke alal ji boo ko amee xam nga nan la yàlla bëgg ko na sànke te yaa ngi koy def ba sa dund gi jeex kookee mooy ki nga xam ne kii yàlla defal na ko xéewal yal na nu yàlla boole ca ñooña damaa bëgg a wax ne yow mu see yow mu tudd ñaari baati yi بوقت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم boo ko xasee ba wax dugg nga ci lislaam waaye nag yow mu dugg doyut mooy tàmbali bi waaye da ngay dox dox bi nag mooy ngay jëfe ndigal yi tey bàyyi tere yi te bala ngaa mën a jëfe ndigal yi da nga leen di jàng ba xam leen bala ngaa mën a bàyyi tere yi da nga leen di jàng ba xam leen kon boog yow mi jàngul da ngaa sànku nan wax waxante dëgg yow mi jàngul da ngaa sànk lu tax ndaxte xamoo yoon wi xamoo siraatal mustaqim te loo xamul mënoo koo def jàngul tari fen nga yow mi jàng xam dëgg gi ba noppi ne ko fi ñëll di def ay mbir yoo xam ne bokkut ak li la yàlla sant bokkut ak li nga jàng yàlla dalaa mere na lu waxante dëgg yàlla dalaa mere ndax te yaay almagdubu alayhim ci nga bokk ki nekk ci xéewal mooy ki nga xam na jàng na ba xam yooyu te mi ngi koy jëfe te it moom xam na ne nangu na ne ab jaam faaw mu tooñ yàlla ndaxte xam naa yoon wi maa ngi ciy jaar tekkiwul ne doo tooñ axa kay waaye nag saa boo tooñee rek dana la metti nga dem jéggulu ji yàlla mu ngoog tey tam saa boo yëgee ne jàdd nga yoon wi saa bu la leeree danga nga di delluwaat ca yoon wa jaari waat ca te foo toll yaa ngi rëccu say bàkkaar ak say rëcc rëcc te foo toll yaa ngi gëstu te yaa ngi jàng ndax jàng li tax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ni mi ngi tàmbalee ci mbootu ba ci jaat li fa tax mu wax ko lislaam dafa bari te doomu aadama dafa tuuti biig muy jël ci jamono ak ci place mbokki jullit yi jàkka ji sëñ Haat daan jiite am na fi ay ati ati ati ati at bu ñu jullee suba ba tey faatiha ak dañuy xunóot door a rukkoo loolu xam ngeen ko gannaaw bi sañaa di ñëw bàyyi loolu bàyyi xunóot ci julli farata am njàng mu doon jàng gannaaw bu mu jógee ca daara ja ca jële loola ñu bari ci nun mokkal nañ ci sañaa di yal na ko yàlla yërëm te dolli koy leer te fayal nu ko mokkal nañu ci dégg ci moom muy wax bu ñu liqaamee ba àggal bala ñoo kabbar mu wax wajjahtu wajhiya للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين wax ko دق kaw ñëpp yi dégg ñi دق بي ne ñooy ay mag ci dëkk bi ku na ne ku mel ne maxa mi ngi may dégg ak ñi ni xam nañu ne sa ñaat yi daana wax loolu ca kaw ñëpp yi dégg bi mu bàyyi ko bu ñu liqaamee mu daal di kabbar bu kabbaree nag teg jàng duwaa istiftaax door a tàmbali jàng fatiha ku saar loolu jàng bu mu gëstu bu gëstu gannaaw bu mu ci daara ja moo ko ko may ku nekk ci loolu xam na ne buñ daan liqaam ci jàkka ji bu ñu waxee qad qaamati salaa benn yoon ca la ñuy yem gannaaw bi boole di wax qad qaamati salaa ñaari yoon ci jàkka ji ak bind ko ci téere loolu gëstu bu gëstu ak continuer ci jàng gannaaw bu mu jógee moo ko may loolu ñi xam-xam nañ ne sañu haadi na ko yàlla dolli leer te gërëm ko te ko da daa génne asakay muurum koor kilo ak liibar te ko daan nett sa ñaar loo xam ne tedd ya gannaaw bi mu continuer ci gëstu di dem Haramayni ak a ñëw di gëstu ak borom xam-xam yafa ba gis ne ëpp na ko ñaari kilo ak nangam mu bàyyi li mu daan njëkk a def ñëw ci lu mujj ndax mooy li gën a wér lool lak ko may mooy continuer bi jàng ak di gëstu gannaaw bu jógee ci daara bi kon nag yoon nga xam ne nanguwulaa jàng benn yoon wala la nga jàngoon daaw ak daaw jég ca nga yem nanga nga limaam ñoom xam ñoom xam doy na te baax na ak doo doo seet doo dendale كون دي يونت بي وخون صلى الله عليه وسلم طلب العلم من المهدي الى اللحد ساكو خم خم من تامبل سي موتا با سي جات خم دا نجي فوكو تي تام دا نغا ام اي جاب جاب يو خم يا كوي تي واي كيغا خم نا كي موم داي جانغنا با خم فراتام اك سنام تي مان كوي ديف تي لا كونتيني تا خم دا فاو مو توغ يالا واي بو توغ دا دي داو جيغلو بو جات دي تي يون واي تام fu mu xama jàdd na fa mu ko xamee fa lay delloo ca yoon wa te da koy boole di jàng ak di gëstu diiru bindam kookee mooy ki yàlla defal xéewal yàlla ñu ci yàlla boole moo tax maa ngi woo sama bopp leen woo ngeen ñëw nu dellu ci téere yi sëgg ci te jàng te bañ a siggi ba ba ni faat yàlla ñu ci yàlla dimbali yàlla nu yàlla baal yaa rabbi noo ngi lay ñaan yàlla nu may ak njub te may nu ak ragal yàlla te may nu ak fegu ci bàyyi fa la nga bëggul te def li nga bëgg yaa rabbi noo nga lay ñaan yal nag nu woon ak dëgg ba xam ne mooy dëgg te nga wër sa gën nu topp ko yal nag nu woon ay caaxaan ak la dul dëgg ba xam ne ne lii mooy lu dul dëgg te mooy ay caaxaan te nga wër sa gën nu mën koo bàyyi man ko faa sori te yaa rabbi yaa noo ñaan yal nag nu teg ca sa yoon wu jub woon yal nag nu may tawfiq nu dox boobu ca tëddee te yal nag nu may tawfiq nu sax ca dox ga ci siraatal mustaqim yoonu gaa ñi nga xam ne ñoom nga defal xéewal ci àdduna ak ci alaxira yal nag nu boole ci ñooñee yàlla boo nu bàyyi mukk nuy bokk ci mbooloo mi nga xam ne da nga leen a mere mbaa da ngaa sànku wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu